Bienvenue sur Salam Vision. Baby يا محمد كن نبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبيبي صلوا يا أهل الكمال النبي باهي الجمال صلوا يا أهل الكمال النبي باهي الجمال كل المعالي قدره ما دعلا يا معالي فلني أيحسب سب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومخترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل وكل ذي ضرب في كل نازلة لطفا جميلا أهوان تلعى أسرى بالمصطفى المجتبى خير الأنام

دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم سيدنا محمد وسلم دائما وخلق على حبيبك خير الخلق كلهم شيخنا التجاني مكتوم سرائله لولا الرسول لكان شيخ سيد احمد تجاني ختم الولايه مكتوم سرائله لولا الرسول لكان شيخ سيد احمد تجاني خوص البرايا ابو العباس احمد من معنى واعظم ان يدلى بقرطاسي شيخ ميروخ الوجود وقطب الكون مركزه ممد سر ساري إلى الناس ومن محبته ديني وقلته عقلي وروحي وجلاسي وأحداثي ومسمعي وفؤادي وانبشار اليد ومخلصي وبين جلاسي شيخنا تجاني dëggal bay haadine hal min murabbin hawa kamala كمثل شيخنا التجاني لا لا تبارك الله أبدا ولايته ربي وآدم بين الماء والتين قلب الوجود الذي أبدا إلى العبد ولايته ربي وعدمه بين الماء والطين شخوتي كان قلوب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين بيت الولاية مصباح ظلام دور كنوزي وحتم الكل شخوتي دم قلب الوجود الذي أبدى يتوى ربي وآدم بين الماء والدين أوصوا البرايا أبو العباس أحمد معناه أعظم أن يجلى بقرطان شقتي دان غوص البرايا أبو العباس أحمد ما معناه أعظم أن يجلى بقرطاسي أجمل ما المعنى أعظم أن يطلى بقرطاس حوز البرايا أبو العباس أحمد ما المعنى أعظم أن يطلى بقرطاس قطب الكون مركزه ساري شيخ تيجان غوث البرايا أبو العباس أحمد ملمان مناه أعظم آل يدلى بقرطاسي ولن رسول الله جاءوك في عيسى الكريم تحلى باسم منتقم مولاي ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي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 امرأة وآباء بيداد وزبير فادت غرارا وهمزة وكذا عباس سيدنا ونجل العبر من زارت به القيار والآل والصحب والأتباع قاتبات ما جلل والصحب والأتباع قاتبات والآل والصحب والأتباع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 حمدا لربي وبه ألوذ من كل ما يسوءني أعوذ في مدح خير الخلق أبدأ العمل أنا الضعيف والذليل في بقل حمدا لربي وبه ألوذ من كل ما يسوءني أعوذ في مدح خير الخلق أبدأ العمل أنا الضعيف والذليل في بقل باي تشرنوني حمدا لربي وبه ألوذ من كل ما يسوءني أعوذ في مدح خير الخلق أبدأ العمل أنا الضعيف والذليل في بقل خير الأنام سيدي محمدي في مدحه أنال كل مقصدي ضاءت به الأرض وكانت مظلمة أنت الرسول حس كل معجزة سباينا سيدنا محمد لما ولدت خمدت أصنام تبعد ثم سقطت أعلام bay Ceerno soppe Pape Kabine baat bihi al-ardu wa kaanat muzlima anta ar-rasuulu xusta kulla mucjiza lammaa wulidta xamudat asnaamu tubcadu summa saqatat aclaamu tubcadu mislu laata summa al-uzzaa wa kullu caabidin lahaa sayuxzaa ilayka unzila kitaabun mursalu min al ilahi wa lahu turattilu sa papa nee na sayiduna muhammad bu di ab iqra wa anta ummi ndax laa taqra'u alqur'ana iqra bismihi sa baay ne baha bika ilahu kulli umma min nuurikum aadamu summa hawa jaza al ilahu amina min walidi jaza radian halima min murdia sayiduna muhammad min nuurikum xuliqat al asjaru والأرض والسماء والأمطار وكل ما بين السماء والأرض بفضلكم من طوله والعرض سببنا سيدنا محمد يا ليتني في زمرة النبي أبعث يوم الحشر كالصبي مع الصحابة وأهل الفضل ووالدي كلهم والأهل بايكرنا رسول الله طه يا حبيبي ملاذي ملجئي ولك الثناء باي تشيرنو نينا بهاء المصطفى فوق البهايا فأكرم من له أصلا بهاء باي تشيرنو داري دار الحق من دخلها أمين حر النار يوم حرها باي تشيرنو نينا بدايته نهايته جميعا بنصرته يتم بها الثناء اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم nee na dootu ko nangu nag am loo xam ne waaye dafa am loo xam ne gannaaw ajjuma bee paase. ca kawam gannaaw ajjuma ca kawam ca kawam. booba. ajjuma boobu. lu ma dégg. nee na li mu dégg. sëñ bi wax ko. sëñ bi wax ko. loolu nag. nee na loolu nag. tax na. nee na tax na. am na loo xam ne. nee na am na loo xam ne. dootuma ko nangu nee na dootu ko nangu nag. dafa ne woon. nee na dafa ne woon. hamdu rabbi day. hamdu rabbi day. buy wax de. nee buy wax de. na fekk ni. ki koy noppiloo. ki koy noppiloo mu ngi ko jege. nee na mu ko jege. ndax. ndax. buy door ci wax. nee buy door ci wax. ci làmmiñam lay doore nee na ci làmmiñam lay doore bu demee ba mu yàgg nee na bu demee nag ba mu yàgg boobu damm nee na boobu damm bu Cheikh Tidiane jël nee na bi Cheikh Tidiane jël buñ ko bàyyee waaw buñ ko bàyyee rek muy continuer muy continuer boobu bu yàggee nee na boobu bu yàggee boobu damm boobu tamit day damm Seydina Muhammad muy Seydina Muhammad foofu nag moom nee na foofu nag moom ku ko noppaloowul ku ne nee ko noppaloowul ku ne li ma bëggoon wax sànq nee na ma bëggoon wax sànq ak bi nga duggee ak bi ma duggee loolu mooy noppiloo message yooyu nag na message yooyu yàgg nañ ci ñëw yàgg nañ ci ñëw ma koy exécuté waaye keroog waaye keroog bi nga xamee ne bi nga xamee ne nee na nee na taalibe taalibe bu xool nee na bu xool sëriñ sëriñam ba doy ko ba doy ko jël buum wóor roccantal def ko ci baatam ñëw jox ko ko ne ko bu yeggee war na firi boppam taalibe nee na taalibe bu gis sëriñ nee na bu gis di doomu aadama di doomu aadama ni mu jël buum nee na mu jël buum roccantal ko roccantal ko ñëw fekk doomu aadama ni moom ñëw fekk doomu ni moom mu toog mu toog mu jox ko buum bi mu jox ko buum ne ko yow laa wóolu yow laa wóolu yaakaar bi ma am ngir nga ommat ma jëmale ma ci suñu borom jëmale ma ci suñu borom mu ne kooku bu matee nee na kooku bu bu la ëndee bu la ëndee ba ne ba ba ne la sa borom a ngi nii sa boo doful nee boo doful di nga fecc buum bi nag nee na di nga fecc nag loolu moo ñu fi andi di nee na loolu moo ñu fi andi de fecc bu mboobu fecc bu mboobu moo ñu fi andi ñun ñëpp li ma doon junj sànq. nee na li ma doon junj sànq. mooy sama gise ak moom. nee na sama gise ak moom sama daje ak moom sama daje ak moom. fi mu ma jëlee nee na fi mu ma jëlee ak fi ma yegg si tey ak fi ma yegg si tey. li tax ma koy wax. nee na li tax mu di ko wax. du par man de. nee na du pour moom de. déedéet déedéet. soxna Roqee mii. nee na soxna Roqee mii. laa bëgg mu xam ne laa bëgg mu xam ne. juumut juumut. moom rek laa bëgg. moom rek la bëgg. mu xam ni mu xam ni juumul. juumul ndaxte. ndaxte keroog bi ma gisee. nee na keroog bi mu ko gisee. ne ma ne ma yow. yow ci yow. ci yow laay jébbal. laay jébbal yaay sama sëriñ. yaay sama sëriñ mu ne ko déedéet. mu ne ko déedéet man taalibe laa. man taalibe laa mënu ma doon sëriñ. mënu ma mënu ma doon sëriñ. lenn day. lenn day laa lay nangu. laa lay nangu sopp ma. sopp ma ma sopp la. ma sopp la te yàlla tax te yàlla rek tax. ci cofeel jooju nee na ci cofeel jooju moo ñu andi tey nee na moo ñu andi ci bés bii ci bés bii cofeel boobu cofeel boobu moo tax ñu toog fii moo tax tey ñu toog xam nga lu tax nee na xam nga lu tax damaa sopp góoru yàlla nee na dafa sopp góoru yàlla ci jamono ci jamono mu soppi ma mu soppi ma ba ku ma gis ba ku ma gis sopp ma sopp la ñëpp sopp nañ la wallahi ku xamul nee na ku xamul na ñëwut nee na moo tax du ñëw ma ne ku xamut. nee na ku xamut danaan ñëwut. danaan ñëwut waaye ki xam. waaye xam xam na ni ñëw na. ñëw na yegsi na mu ngi fii. mu ngi fii ndaxte. ndaxte ñii mu yëkkati. nee na ñii mu yëkkati. ñii mu yëkkati ñii. ñii mu yëkkati ñii mu yóbbante fii. ñii mu yóbbante fii amul lu ko gën. amul lu ko gën ci xadara bi ci xadara bi. kii. nee mooy taawam. bu góor bu góor. soo ci gisul ci moom Thierno. nee na boo gisul ci moom Thierno. foo koy gisee foo koy gisee xam nga ko de. kii. nee na kii Pape Ka. gaynde gaynde bu Thierno Abdourahmane bu Thierno Abdourahmane Bari. ma xam ko fii ma xam ko fii xam ko bitim réew xam ko bitim réew. est-ce que. yemu fa nee na yemu fa. bu fa yemoon rek nee na bu fa yemoon rek mu neex mu neex mu doy mu doy waaye yemu fa de waaye yemu fa de dafa yëkkati nee na dafa yëkkati ñaari gaynde yoo xam ne ñaari gaynde yoo xam ne ñooñu ñooñu bi ma ñëwee ci xadara nee na bi ma ñëwee ci xadara mu romb leen ci buntu kër mu romb leen ci buntu kër mu ne leen fii nag mooy sama place ñi nekk ci mbedd mi nee na ñi nekk ci mbedd mi nii ñii nii waxtu bu ma ñëw waxtu bu ma ñëw ba fekk leen ci buntu bi kër gi ca mbedd ma ca sedd ba ca taw ba ca naaj wa ma ne leen ñii nag ñooy sama gaay mooy Makhtar Diaw ak Moustapha Sadio nee na li mu yëkkati xam na ko bu baax a baax fii nag li ma fi indi woon tey nee na tey fii li mu ko fi andi woon tey cofeel soxna mooy cofeel soxna Roqaya. soxna Roqaya mii. waaye na xam ne. waaye na xam ne li ma fi indi. li ma fi indi mooy lal sijaade boo xam ne buñ ci jógee. buñ ci jógee dana xam ne lépp dëgg la dana xam ne lépp dëgg la. gis nga kii. nee na jëmm ji. Omar Omar. ren ji nee na ren ji. moom. moom ak baayam. ak baayam ak man. ak man daanaka. daanaka. tournée Europe bi yëpp. tournée Europe bi yëpp. ñoo ko defandoo ñoo ko defandoo. Mhm. cofeel cofeel gi nga xam ne ki nga xam ne dafa am dafa am diggante diggante baayam baayam ak baayu kii ak baayu ma seede ko ma mu seede ko yëg ko yëg ko ko fekk ko dëgg la mhm. oustaz Pape Hann nee baayam nee na baayam ren jii rek ren jii rek. bi ma jógee fees nee na bi ma jógee fees. subhanallah subhanallah. bi ma waree dem ca ëllëg sa fees nee na bi ma waree dem ëllëg sa fees. boobu la bokk ak moom jotaay nee na boobu la bokk ak moom jotaay. ci bergamo ci bergamo. kon ñoom ñëpp tey bu ñu dajee. nee na kon ñoom may yóbbu. bi ma leen gisee nii. ak taaru bi ñu taaru. ak leer gi ñu àndal. ak fees tep. ak nga xam ne. li nga xam waajur yi. seen nañ leen ko ba ñuy gàll loolu. bi ma leen gisee. na bi ma sama xel dafa dem. ca keroog ba ma dajeeg benn waay. bi al génnee ak. mu ne ma sëriñ bi. ma ne ko lan mu ne réew mi de mu ngi yàqu. ma ne ko lu xew. mu ne mag ñu baax ñëpp a ngi dem. baax ñëpp a ngi ma ne ko mag ñu baax ñëpp a ngi ñëw man mag ñu baax ñëpp a ngi ñëw góorgóorlu ba bokk ca góorgóorlu rek ba bokk ca <laughs> wallaay ndeysaan wallaay bu ñëpp demee ñëpp ñëw <laughs> hmm? yow nga fekk magum jëm yow fekk magum jëmm bu bàyyi lépp bu bàyyi lépp di saxal si kimam di saxal si kimam di ko weexal di ko weexal di bëgg a doon mag bëgg a doon nga ne ko mag ñi jeex na nga ne ko mag ñi jeex ma ne ko góorgóorlu yow góorgóorlu <laughs> <laughs> bi ngeen dugg see. nee na bi ngeen loolu moo dellu si waat sama xel moo dellu si ma gis magu ëllëg yi. gis magu ëllëg yi ma gis leen. ma gis leen te sama gis si yéen. te sa gis-gis nekkul fii yëpp de. nekkul fii yëpp jéggi na géej gi na géej gi. ndekete ndekete. tey suñu mag ñoo bokk jamono di ngeen xam ne ñoo bokk jamono boo bëggee tënku ci démb boo bëggee tënku ci démb boo bëggee tënku ci démb te fekke woo démb te fekke woo ki fekke démb fekke woo ki fekke démb sa tey réer la na sa tey réer la ndax booba nee na ndax booba dangaa xamul dangaa xamul la woon démb la woon mooy tey mooy tey lañ lay jox lan la jox la ëllëg mooy tey mooy tey buñ ca yeggee buñ tey la tey la kon tey la tey kon la tey moo tax tey la tey moo bi ma dajee góor gi moo tax mu dajee góor gi ca Paris ca Paris ma ne ko fii ci Paris ma ne ko fii ci Paris tey la tey tey la tey fii ci Paris fii ci Paris la lépp di pare la lépp di pare gaa naan waaye woykat bi kan la woykat bi kan la <laughs> waaye booba. waaye booba kilifa gi nee na. moom moom. li mu doon xalaat. mooy lan moo door. lan moo door bay pare. bay pare lii moo dooroon. lii moo dooroon lii moo pare lii moo pare. macha allah. soxna Rokhaya. nee na soxna Rokhaya. bëggoon nga te kenn wu la bëgg. nee na bëggoon nga te kenn wu la bëggale. soppoon nga te kenn wu la soppal. soppal te te waxu la soppal. nga sopp ma fële ci géejawaay. nee na nga sopp ma fële ci géejawaay. nga tuxu foofu nga ñëw fii nee na nga tuxu tuxu fii. am fi sa kër nee na nga am fi sa kër. nga ñëw nee na nga ñëw fi. nga ne ma nga ne ma kaay. kaay dama lay sargal dama lay sargal. yemu ca yemu ca. mu jëf-jëf ju baax mu jëf-jëf ne ma nag ne ma na yem suñu diggante rek suñu diggante ma ne ko déet ma ne ko déet gis nga yow mi jëf-jëf ju baax yow mi jëf-jëf ju baax te def ko te yàlla tax te ko te yàlla amoo pour wax ko amoo pour wax ko waaye man mi ko defal man mi ko defal man man mi ngi ko defal sama cant gi sama cant bala muy mën a validé wu bala muy mën a validé ma wax ñëpp dégg ma wax ñëpp dégg li ma defal nee na li ma defal lu rëy la lu rëy la tuutiwul tuutiwul ndaay tuutiwul daf maa dëkkal ci xolam ba noppi. daf ko dëkkal ci xolam ba noppi. xeeb loolu. xeeb ne ma nag tey jii. ne ma nag tey jii. terrain bii nekk fii. terrain bi nekk fii may naa la ko. may naa te yàlla rek tax yàlla rek tax. mu ne ma bu ma ko wax kenn. nee na ko wax kenn. boobu xamul ne wax naa ko ñëpp. boobu wax wax na ko ñëpp wax ko ñëpp ku def lu baax ñu wax ko. bu ñu kenn fàtt. nee na bu ñu kenn fàtt. ku def lu baax ku def lu baax. ñëpp wax ko ku lu baax. ku def baax nañu maandu rek kon kon da yow jigéen nga ñu kon alhamdulilah alhamdulilah kon kon kon léegi fi mu toll nii man maay sa bëkk ne fii ci biir Bargny alhamdulilah kon sant nañ yàlla sant nañ yàlla baax te góor gi te góor gi téye na sama loxo nee na téye na ci loxaam ci biir néeg ci biir néeg mu ne ma Seydina mu ne ma Seydina mu ne ko naam mu ne ma ma samay wax ci yow mu ne ma samay wax ci yow nekkul ci gannaaw ci gannaaw ba ngay taxaw ba ngay taxaw di gestu di gestu di xool xool doxal doxal mu ngi sa kanam di ñëw di ñëw soo dajee moom di nga ko ràññee ko ràññee waaw moo tax nag nee lan moo tax nag moo tax nag moo tax nag waaye wax jot na nag waaye wax jot na nag ndax li tax ñuy wax nee li tax ñuy wax nag mooy xamal ñu xamul mooy xamal ñi xamul nag li tax ñiy wax nee li tax ñuy mooy mosal ñu mosul mooy mosal ñu mosul da ngay tax ñuy wax loolu loolu loolu da tax ñuy wax mënoon nañu mos li ñu mos nee na mënoon nañoo mos li ñu mos ne pat ne pat wallaahi waaye comme góor yàlla yi waaye comme ñoom ñoom ndawalu guddi lañ ndawalu guddi lañ ci ndab ci ndab la nga dompat rek la nga nga xam nga xam da ngay dompat da ngay da ngay dompat di wii ci fekk am na fekk am na ku dompat ku dompat lu ëpp li nga dompat lu ëpp li nga dompat tene pat tene pat wallaahi wallaahi la ilaha illallah ko defee soxna Rokhaya nee na kon bu ko defee nag soxna Rokhaya Moustapha Bare nee na Moustapha Bare ni mooy Bari Omar Ba ngi nee na suñu sëriñ ne Omar Ba mooy taaw Thierno Amadou Ba Mbambilor mooy Thierno taaw Amadou Mbambilor Mbambilor Mbambilor xalif général Mbambilor xalif général de Mbambilor ma ngi nii taawam moo nekk nii ñoom ñëpp daje fii tey ñoom ñëpp tey bàyyi seen ji teeb daje fii ñoom ñëpp xoolal nag nee na xoolal nag la leen jàppoon ci circulation la leen jàppoon ci circulation lenn de du lenn lu dul dajale rek lu dul dajale rek liñ doon ñaan liñ doon ñaan bëgg biñ doon bëgg biñ doon bëgg ñu koy dajale rek koy dajale xaw ma fan la ñu dajee xaw ma fan lañ waaye ñoom ñoo duggandoo fii te ku ci nekk ci ñoom fa nga jógee bokk la keneen ci fa nga jógee borom fa nga jóge te kenn yëgal wul sa morom te boobu ba léegi ñu doon taxamu pour pour xaar leen sëñ bi nangul woon jël kàddu xaar leen. su tant bi amoon lumière. nee na su tante bi amoon lumière. tànk ñëwul tànk ñëwul. kenn du door kenn du dem. wallaahi dëgg la. waaye comme fa nag waaye nag konka nag defu ñu woon lumière defu ñu woon lumière ñi euh, xalaat timis bi ñi xalaat timis bi mu joxee ndigal rek ñu joxee ndigal rek ñu door ñu door waaye loolu lépp lii ngeen indi nii ngeen andi nii ngeen ko indil nii indil ko gox gi nii lii bu amul woon kon ñu war a am mën a sikki sàkk war a am am sikki sàkk ci lañ doon def ci waaye lañ doon def waaye lañ doon def wér na te waxoon naa leen ko ci biir wax bi nee naa leen néew ma yàlla na yàlla nangu nee naa leen néew ma ne na yàlla nangu ndax su ma ko waxee ndax su ma ko waxee dañuy toog di xaar ñu toog di xaar na xamuñu kañ la nangu na yàlla da dane yàlla nangu na kooku bokkul ak yàlla dina nangu kooku bokkul ak yàlla dana nangu bu soobee yàlla bu soobee yàlla kon alhamdulilah kon alhamdulilah Mouhamadou El Habib kon Mouhamadou El Habib jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Moustapha Moustapha sa njaboot rek sa njaboot rek Moustapha Moustapha barñe ngi barñe ngi ni Moustapha Moustapha soxna Roqaya Juufa ngi ni Juufa ngi ni ñaanal leen ñaanal leen ko ñaanal njaboot ñaanal njaboot gi ñaanal leen ko ñaanal njabootam ñaanal leen ko ñaanal njaboot gi moom nag dafa def lu jafe ndax jotaay yu mel ni bëri na ci biir néeg ci lañ koy commencé di ko génn ci mbedd mi waaye yow rek na naka fàng ci mbedd mi loolu cër la de yombul de yombul de ak ñi fi yombul de. yombul de. yombul de. yombul de di ko defee Moussa. kon ñu ko defee njaboot gaa ngi njaboot gaa ngi noonu. man bég naa. nee na moom bég na man moom. man man nee na moom bég rek. bég rek bég xamdu bi moom. alhamdulilah sant rek sant rek sant rek sant rek sant rek. sant rek allahumma salli allahumma salli ala sayyidina. aleykum wa rahmatullah. xam naa ne kàddu yi du gudd. kàddu iftitaax la. ñeen ci sunu soppe sunu doomu sëriñ. muy Ceerno Cheikh Cheikh Cheikh Omar Fuuti yu Ba tabaarakallaahu ñu ànd ak moom ci ndigalu way juróom yàlla defal nañu sutura nag ñi ngi sant yàlla ci ñetti mbir benn bi Ceerno Cheikh maa fekkee kenn nettaliwu ma moom jëmm ju tedd ji Hamdu Rabbi la tudd bis mu ñëw fekk ma kër Ceerno keroog maa leen intervenir man maa leen dugal ci néegu Thierno mu ànd ak sama bàjjan Ndey Jóob Baaba ñoo bokk benn sa muy indi carte Thierno ngir journée xaw ma lan vingt quatre heures xaw ma soixante douze heures ban AIC kon yaakaar naa fàttewu may sant yàlla la nga waxoon ca biir néeg ba ci ishaara ñetti jëmm yoo xam ne ku ne am nga foo jaar ak moom nit buy wax dara su wéetee wax ko wéetali ko wax ko la muy wax dëgg la bari na koy wax ci néeg bu génnee ci pénc na pat waaye alhamdulilah yàlla defal na la sutura keroog ca néeg ba junju nga bàyyi jëmm ji wax ci moom la nga wax ca moom wax la nga wax ca na wax la nga wax ca beneen guur yàlla ne ñoom ñett ñëpp ku ci ne dafa am lu la yàlla defal ci moom tey ñu ñëwaat nga baamuwaat kon ñu ngi ciy sant yàlla beneen jotaay bi ñi ciy sant yàlla mooy keroog ba Ceerno Abdourahman xafizahu llah wa raahu wa ataala llah wa ma siha wal aafiya keroog bi mu waree ñëw ñëwul mu faf ñëw bi mu waree ñëw ñëwul mu faf ñëw mooy pour la première fois ma ànd ak Ceerno ñu dem ca xadara ba fekk fa doomam ji bi ñu nuyoo ci biti xàmmeewu ma ko ndax lëndëm bi bi ñu duggee toog ci saal bi tabaarakallaahu la sama xel sama fikir daw may fàttaliku jalsa jal mu séq ak Cerno man naw ko lu tax bi xurmatin wasala man qad wasala bi tarkiha fasala man qad fasala aw qataa man qad qataa nit dina julli ba ba ay ba ay wóomam maanaam maanaam xoosu wala mu mu yàqu te du am dara ci yàlla ndax amul xorma jaamu yàlla mooy yóbbu nit aljana waaye tëg bët yàlla ma fay yóbbu nit mu ñëw ca xadara ba doxal na mu doxalee ci wàllu xorma ne Ceerno yaay sama baay Ceerno Abdourahmane bu fi ñëwoon du ma doxal du ma wax kon cër bi yëpp mi ngi noonu ci sa maa ko fekkee moo tax ma ni kenn nett bi kon ñu sant yàlla ci lool kon jëmm ju tedd gi nii keroog wax fa kàddu yu yiw kàddu yu sell mhm. jëmee ko ci Ceerno Ahmed Tidiane ba diggante moom ak Ceerno Abdourahman euh, Bari mhm. di ñaari góoru yàlla yoo xam ni mhm. àddina xam na leen ndax du ñëpp ñëw liggéeyal yàlla siiw waaye macha allah yàlla defal na leen ñoom loolu sérul la bu nekk ci ñoom kon Ceerno ñi ngi sant yàlla ñetteel bi ci des nag ma ñëw ànd ak sama doomu sëriñ sama seex sama rakk sama lépp baayam wooma ba ma ñëw jël loxoom ak sama loxo seexal lañu ne li des ci seen dund bu leen demati fenn mission bu may yónniti yéen laa koy boole muy doom joo xam ne li may gis ci jëmm jii moom laay gis ci moom ndax ñoom ñaar kenn ku ci ne dama la seetlu ni ngay daree sa baay ak ni ngay tarbiyoo sa baay ak ni ngay ni ngay ni ngay fegee sa baay ci lu baree bari bari ci ay taxawaay te koo ci seen rek yëg ni baayam toog kon ñu ngi sant yàlla ci loolu kon alhamdulilah ala kulli xaal ñu ngi bëgg loolu macha allah li nga wax yow li la dal ba ba tabaarakallaahu junjoon nga ko ci 72 heures ya ne bu njëkk ba ku la xamoon démb xam la tey xam ni am na foo jaar ndax am na loola yàlla séddee woon nga mënoon ko lool nga xëy ñu tuub la ba ku la gis defe ni yow Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moo la meññ. Chérif radiyallaahu taala loolu nit nitu yàlla moo ko mën nitu yàlla moo lay cuub def ci yow anwaar yoo xam ne ku la gis rek bëgg laa woon na mm-hmm. xam ne rab yi ku ko gis rek ñi sopp ko bëgg ko ba pare bëgg mel ni moom ndax mm-hmm. sell gi ak civilisé gi macha allah waaye ak dal gi ak mbaax gi nekk ci moom bëggul kenn mer mm-hmm. kon tabaarakallaahu ak tabe gi lépp cër yëpp sa bàjjan da daf koy jëw ci bëggam lu baax waaw ah, day job baaba ku ko naw la ku ko sopp la ndax ay jaar-jaar yoo xam ne naw na ko moom dafa dund ak dignité màgg ak dignité dara feesul bëtam yàlla rek kon nag ñi ngi sant yàlla ci loolu Cerno ni la Cerno def ba ku la gis kii la manit noonu la ma bàyyam def ndax jëmm jii toog su ma juumul toog nañu lu mat fukki at wala mu ëpp wala mu jege ko tegante wuñ bët man ak moom ci daara ji lañ gëjantee tegante bët muy Cerno Ahmed Tidiane Tall mm-hmm. imaamu zawiya Seydi Hadj Malick ca Tiwaawoon kër ga lañ doon jàngee naxwu ca kaye ba ak ya ca aju ginnaaw nga sax dama defoon daa dem Mauritanie ak ya ca aju tey ma gisaat ko am cofeel mm-hmm. big lool ma xam na mu jàmbaare woon ca daara ja mu ñëw yëkkati euh, xasida yi ma xam ni baat ba ma doom dégg démb mi ngi nii muy jàmbaar bi ko yàlla baaxee tabaarakalla baayam lépp bi ma jàngee Tiwaawoon ba dem Maroc jàngi Serigne Abdoul Aziz Al Amin mooy sama baay moo ma jox moo ma jàngal ci institut am laa jàngee ba am bourse dem jàng ñibbi si bi ma ñëwee ne woon naa ne bi mu génnee àdduna nag la ma yàlla waneeg ci Cerno baayam ma dem doom gëstu am yu ma doon ut ci wàllu aynul baatin moom la ma bàyyam dajeel mu jox ma ci loo xam ni tabaarakallaahu tey maa ngi sant yàlla ndax damaa demoon jàngi këyit yi waaye xam naa nekkati këyit yi maa fil kutub ilal xusumaat waaw tabaarakallaahu parce que alay boo ko jàngee te mosoo li ñoom ceer na ñi mos tabaarakallaahu doo am connexion moo tax wax na ko léegi zuq man saaqa aw saaka man saaqa aw saaqa man xat saaqa mosal ko mos fa ñuy mosee wala nga mos ku mos fa ñuy mosee wala nga mos fa ñuy mosee mos fa ñuy mosee nag jafe na de loolu ñoom Seydi Hadj Malick Cheikh Al Hadj Omar Foutiyou ak ñu mel ni ñoom ñoom mos fa ñuy mosee ndax ñoom ñoo sës rëkk nag comme nag moo ñun mënuñu ko ñu mos ko mos fa ñuy mosee nag tabarakallahu wala ñu ànd ak ku mos ku mos fa ñuy fa ñuy mosee zuq man zaqa aw zaqa man zaqa aw zaqa man xat zaqa kon tabarakallahu ñun sant nañ yàlla tey jotaay bi jotaayu ngëneel la wallahi xaw ma ku moom kër gi waaye na sant la li des ci dundam bi lépp day yokk ci yàlla. incha allah ndax takkandeer yi fi teew. ay takkandeeru am waar lañu. ay doomi ay deret ci wilaaye ñoo rot ci si kër gi. ku ci nekk am na lu baayam ak lu maamam jëf ci diina jëf ci tariqa bi. lu war a tax penc moo dem yàlla dugal fa prisam. macha allah ma toog nag boobu ba léegi rek. di muuñi rek ndax góor gi jàkkaarloog man jàkkaarloog ñëpp rek saal bi di tabaarakallaahu ah. ma xam ne rek alimentation bi daal dox na kon Thierno dañ doon ibbi kàddu yi rek seede ñi nga àndal nga ñëw ànd ak say rakk ànd ak say doomi ndey kii mooy président Mor daayira Shababu Rahma mboolem ndaw yi nekk kër Cheikh Ahmed Tidiane Ba ci loxo Thierno bii la leen teg moom mooy seen président en même temps collaborateur monsieur le maire Ngagne Diop bu mairie bu Mbambilor moom ci biir staff bi la bokk di lépp di lenn ci ci cerno tabaarakallaa ñu ñëw ànd ak sunu rakk sunu xarit sunu doomu nday oustaz bo maara ñu koy tuddee Abdoulaye Anne di doom ci oustaz Pape Anne mhm. tabaarakallaa ku ko gis nii xam ne boroom xam-xam la lépp lu nekk ci Pape Anne rek ci moom tey bu bu àddu woon nii rek nga defee ni Pape moo jógee TFM ñëw toog ci saan tabaarakallaa ci gàttal daal ñooñu la ñu àndal ñu ngi nuyu nag délégation bi ànd ak cerno taaw cerno ñëw fekk si ay ay way juróom fekk si ay soppeem fekk si ay kóllëreem ak ay am di jàmbam ñi mu àndal miinuñu leen ci tur ak jëmm waaye miin nañ leen ci roox ku leen gis rek si beegum fii wujuhihim min athari sujud kon loolu zalika masalu fi tawreet wa masalu fi linjil ila axiril aaya su ma ko toppee day gudd waaye tabaarakallaahu xar kanam gi rek falaa tara ahadan min ahli abadan illa wasimaam fi xosnin wa tasyin loolu nag góor gi rek laa ciy gis xosna ak tasyin ci hamdu rabbi daal man ci sëñ borom daar rek gis su rombee Ceerno Ahmed Tidiane ba ah. su rombee nag ma ñëw gis ko ci moom ah. moom boo ko xoolee rek xam ni am na xusn macha allah yàllaa koy defar nit nag nit dina puudaru passé lu def lu nekk te lu rafet taar dëgg mooy xol waaw yawma laa yanfau maalun wala banuuna illaa man atallaaha bi qalbin salim sa xol bu rafetee sa xar kanam day rafet moom na xol bi moo seetlu rafet moo tax mu mun a nangul nitu yàlla cëram xam naa ni àddina bi yëpp fonk na leen gëm na leen waaye fi mu teg sa bàyyi tegu fa kenn te xam na li ko sa bàyyi defal ndax toog na ci néeg seede ko te yéen nekku leen kon man ma ko fekkee woon jaar na ma seede ko Thierno da maa ne woon rek naa la ibbil pour nga mën a dugg ci kàddu gi daal di jottali kàddu Thierno ñu ni woon naa la ibbilee noonu nga xam ne jota jotaay bi daal ala daw me na yàlla defar na lépp yàlla yàlla doolu sutura lu ci dëng ci man la lu ci jub ci yàlla la Thierno Cheikh Cheikh Hadj Marou fuuti yu kon bismillah nga sànni kàddu walaw kalima tey ni bu ko defee li ci des nag euh, sunu sëriñ sunu taaw sunu lépp daan koy àgg di incha allah lu ci dëng nag ci man la maa ngi jégalu baax a baax alhamdulilah si bari si bari bari alhamdulilah si bari bari bari bari bari bari kontaan nañ baax xayaakallah xayaakallah jërëjëf si xam ñi ngi siyaar kay kon ñi ngi siyaar baax alhamdulilah xayaakallah xayaakallah ñi ngi jégalu baax daanaka kàddu yëpp mat na. nee daanaka kàddu yëpp mat na. nee na li mu Mouhamadul Moustapha mi wax. bi mu yëkkatee kàddu. bi mu yëkkatee kàddu. kàddu yëpp matoon na. kàddu yëpp matoon na. dafa baax rek. moom dafa baax rek. fu ñu dem. nee na fu ñu dem. bu yëkkatee kàddu ba noppi. bu yëkkatee ba noppi. jox ma kàddu gi. jox ko kàddu waaye moom fu mu teew. waaye moom fu mu teew. yëkkati kàddu. moom bu yëkkatee kàddu. kàddu yëpp mat na. kàddu yëpp mat. ndax ci xam-xam. ndax ci xam-xam. ci taxawaay. ci taxawaay. ci lépp. ci lépp daf koo mate. moom mu sax moom ne léegi nee li mu wax léegi. nee na Thierno. nee na Thierno. daf ko boole ak moom. daf ko boole ak moom. seexale lu wér la. nee na loolu lu wér la. lu tax loolu. nee lu tax loolu. ñëw kër ga bari na lool. ñii ñëw kër ga bari nañ lool. waaye boo gisee Thierno seppi ko ca. waaye boo gisee li tax Thierno seppi ko ca. wax ko lii. wax ko kàddu yii. taxawaayam la. nee na loolu taxawaayam la. taxawaay bi yëpp lan la. taxawaay bi taxawaay bi yëpp lan la. mooy jikko. mooy jikko. bu jikko ju rafet. booy wër ku baax. nee na booy wër nit ku baax. nit ku jub nit ku tabe. nit ku tabe. nit koo xam ni. koo ni bu la waxee ni bu la waxee lii lii la. boo ñëwee ba ci moom. boo ñëwee ba ci moom ko fekk ci moom. nee na moom bu ko neexoon mu ni sëriñ ah, la. nee na bu ko neexoon mu ni sëriñ la. deretu deretu wilaya mooy daw ci man. bu ko neexoon mu ni deretu wilaya mooy daw ci man. xëcc xëccu ko te bu ko xëccu woon. nee na te bu ko xëccu woon. ñun ñëpp ñu nangul ko. ñun ñëpp ñu nangul ko. ndax cëram la ndax cëram. waaye. waaye deful loolu. waaye deful loolu. wàccee boppam. daa wàccee boppam. jiital taalibe. jiital taalibe. te imaam Elgey Mbaaw bii. te mooy imaam bi moom mii mooy imaam bi foofu. waaw te taxawaayam rafet na. nee na te taxawaayam rafet. moo waral tey. moo waral tey. góor gi fonk gi mu fonk bis góor gi fonk gi fonk bi. moo waral mu ko loo a jàpp. moo waral mu ne ko loo mënti jàpp. bàyyi lépp bàyyi lépp nga ñëw teewal ko fii ngànt ndax bu du woon a ngànt bi ko téye man maay ñëw teew nee na kon moom mooy ñëw teew taxawaay bi rafet na nee na taxawaay bi rafet na Mouhamadou Moustapha yal na yàlla fay na yàlla taxaw na yàlla taxaw la na yàlla sàmm la yëkkati nuyoo bu mag waaye di yëkkati nuyoo bu mag bu sell bu sell koo xam ni ci ko xam ni am na fu ñu ko tàmbalee am na fu ñu ko tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye amul fu mu yam waaye du suñu nuyoo de nee du nuyoom de waaye nuyoo xalifa bi waaye nuyoo xalifa bi la di Cheikh Seydi Ahmed Tidiane di Cheikh Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Ba balaa may ñëw. nee na balaa moo ñëw. wax na ma lu bari si si góor gi. wax na ko lu baree bari ci góor gi. wax na ma lu bari. wax na ko lu bari waaye am na ci yoo xam ni. waaye am na ci yoo xam ni moom moo ci tegal boppam bëtam. waaw ndax nekk nañu ay yoon. ndax nekk nañu ay yoon yoon yoon. fa tabaarakallaahu nee fa tabaarakallaahu. mu ngi nuyu mbooloo bi fi teew nee mu ngi nuyu mbooloo bi fi teew yëpp. kenn ku si nekk kenn ku ne ci ñoom. nga yëg sa biir jëmm. nee nga yëg ci sa jëmm. jug naa fi mu toog. ni moom Thierno jug na fi mu toog. sukk ci kanamu kenn ku si nekk sukk ci kanamu képp ku mu doon. jox la ñaari loxo jox la ñaari loxo. nuyu la nuyoo lislaam nuyu leen nuyoo lislaam. ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye fay leen ko waay. waaleykum salaam wa rahmatulah. nee macha ngi nuyu bu baax. nee mu ngi nuyu bu baax. suñu wayjur. suñu wayjur. di suñu di suñu sëriñ. di suñu sëriñ. suñu lépp. di suñu lépp. waaye nag. waaye nag di xaritu. di xaritu. di kenn. di kenn. si góor gi. ci góor gi. di Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi. di Cheikh Seydi Ahmed Tidiane yi. ku mu fonk la. nee góor gi ku la fonk la. ñi mu xam. nee na ñi mu xam. bari na bari nañu. waaye. waaye. fi la teg. fi mu la teg. néew na. néew na ñi mu xam. ñi mu xam ba teg leen foofu. ba teg leen foofu. si lu tax. nee na lu tax. sa jikko ndax sa jikko. Mm-hmm. jikko sang dëgg dëgg nga yor. nee jikko sang dëgg dëgg nga yor. wax nii man maa ci teg nee moom li muy wax nii moom moo ci tegal ba. ko bëgg wax rek ma ma ñëw wax kàddu yi. nee munoon na koo wax rek mu ñëw jottali kàddu ndax nekk na ay yoon wax na ko léegi. ndax nekk na ay yoon te wax nga ko léegi. góor gi di dem Europe. nee fu góor gi di dem Europe. rawatina bi ñu ñëwee Italie. rawatina bi mu ñëwee Italie. ñëpp xam nañu Italie euh, euh, àll bi ni mu mel. ñoom ñëpp xam nañu àll bi ni mu mel. kenn amul jot. kenn amul jot. dañuy xëy. dañuy xëy di liggéey. di liggéey guddi guddi ak bëccëg képp ku la si may benn minute rek. nee na képp ku la ci may benn minute rek. kooku mënutuloo ko fay. nee na kooku mënutuloo ko fay. rawatina moom. rawatina moom mi day bàyyi yitteem. day bàyyi ay yitteem bàyyi liggéeyam. bàyyi liggéeyam bàyyi soxlaam. bàyyi soxlaam ñëpp xam nañ day xat de. ñëpp xam nañu day xat day bàyyi léppam. waaye day bàyyi léppam. ñëw ñëw di ànd ak góor gi. ànd ak góor gi fu ceerno di dem ci programme. fu coon ceerno di dem ci programme. otoom lay taal otoom lay taal. ñëw ñëw. tànkam tànkam ab tànkam ba ca programme waaye mu jëlee ndigal li nag. waaye mu jëlee ndigal loola. ci suñu wayjur ci suñu wayjur. Thierno Abdourahmane euh, bari ca boggal. Thierno Ahmad Tijaan ak Thierno Thierno Abdourahmane bari ca boggal. te bu ñëwee. nee na bu ñëwee loolu lay fësal. loolu lay fësal loolu lay loolu lay wax Thierno gën ko naw. nee na looloo tax Thierno gën ko naw. nee moo tax Thierno ni ko. rakkam rakkam. bi nga xam ni. bi nga xam ni daanaka Thierno Djiby. daanaka Thierno Djiby moom la ko dénk. moom la ko dénk ci mboolem fànn yi. ci fànn yi moom moo nekk ca France. moom moo nekk ca France mooy Abdou Razak. mooy Abdou Razak. fekk nga ko kër gi ay yoon. mais fekk nga ko kër ga ay yoon góor gi la. ku takk ci góor gi la. xaritam la xaritam la. léppam la léppam la. moo waral moo waral muy fas tey soxna. muy fas tey soxna. te lépp. te lépp. si loxoom nañ ko teg. ci loxoy góor gi lañ ko teg. te Thierno Djibi. nee na te Thierno Djibi am lu mu lu mu diis seen diggante. am na lu mu diis seen diggante. loola waral mu dem doxali ko. nee na war a mu dem doxali ko. waaye bu du woon loolu. waaye nee bu du woon loolu fii kenn du ko fi njëkk. te fu fu mu koy takki ji dafa sori. nee te fa muy takkee ji soxna dafa sori. te côté Fouta la. te côté Fouta la. depuis 6 nee na depuis 6 ci suba lañ fa génn. ba léegi ngi si nii ñu ngi ci yoon. moo waral mu ne ma. ne ko. ñëw teewal ko fii. ñu ñëw fii teewal ko fii. nee nga yëg. xelam xalaatam xalaatam. yitteem yitteem lépp mu ngi fii ci jotaay bi. te itam nga xam ni. nee nga xam ni. soppeem nga soppeem nga. ngir lan ngir lan. sopp ngir sopp di nga sopp di nga sopp. xaritam xaritam. seexam seexam magam magam di léppam di léppam Abdourahmane Bari muy woy juróom Cheikh Abdourahmane Bari gën na yokk nee na loolu gën na yokk gën la téye gën na la téye gën la naw gën la naw ndax da ngaa fidèle ndax da ngaa fidèle ndax boo waxee lii. nee boo waxee lii. loolu la loolu la. boo waxee lee. boo waxee lee loolu la loolu la. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. ñëpp naw nañu la nee na ñëpp naw nañu la. ci sa xam-xam. ngir sa xam-xam ngir sa dal. ngir sa dal waaye itam macha allah. waaye itam macha allah ni ko sëñ Mouhamadou Moustapha waxee. ni ko Mouhamadou Moustapha waxee. siimaahum fii wujuuhihim min asari sujuud. ku xool sa xar kanam rek. nee ku xool sa xar kanam rek. daf lay bëgg. daf lay bëgg. sopp la sopp la te du ko tey. te du ko sax tey. moo tax mun naa ne sax nee na mën na ni sax. kenn ñëpp am nañ noot nag. ñëpp am nañu noot waaye mën naa ne amuloo noon. waaye mën na ne yow amoo noon. waaye leer gi la yàlla def si yow. ndax leer gi la yàlla def. même sa noon sax. même sa noon sax bu toogee bu toogee ak yow sax. bu toogee ak yow dina la teral dina la teral. màggal la dina la màggal sopp la dina la sopp. te du ko tey te sax du ko tey. lu waral loolu. nee na li waral loolu. mooy turu yàlla yi ngay liggéey. macha allah macha allah. ñëpp seede nañ ko. ñëpp seede nañ ko waaye rawatina nag. takallam tu oraf. waxal rek ñu xam yaay kan. boo waxee rek. mais boo waxee rek ñëpp xam sa kàddu ñëpp naw. ñëpp naw sa xam-xam sa xam-xam te li si gën a neex. te li gën a neex xikma ngay waxee. xikma ngay waxee. boo waxee rek. nee na boo waxee rek lépp. lépp xikma lay doon macha allah yàlla sàmm la yàlla aar te ñu jaare la foofu nuyoo góor gi teg ko sa loxo teg ko ci sa loxo nga tegal ñu ko ci suñu loxo mag mënoon naa jël rek ndax moom mënoon naa jël rek jox sëriñ bi jox sëriñ bi waaye man tuuti naa ci waaye moom tuuti na ci jox ko nuyoo jox ko nuyoo moo tax ma jaarale ko ci yow mais eh, moo tax mu jaarale ko ci yow bu jaaree ci yow te xam na ne bu jaaree ci yow nuyoo bu yàlla nuyoo bu yàlla màgg bu tedd bu màgg bu tedd dana mat dana mat sëriñ bi ci sëriñ bi ba àgg ba ci góor allah macha allah muy Sëriñ Mouhamadou Moustapha muy Sëriñ Mouhamadou Moustapha ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ziyaara di ko jox wàcc waayam taxawaayam rafet na lool moom itam taxawaayam rafet na lool nee na suñu mag la waaye waaye itam ku am taxawaay la ku am taxawaay ñu gis nañu gis nañu ni mu taxawoo góor ni mu taxawoo góor gën na yokk ñu téye nee na loolu gën na yokk ñu téye gën na yokk ñu fonk ko nee na gën na yokk mu fonk seetul dara nee na seetul dara doomu sëriñ la bu ko neexoon mu ni doomu sëriñ la doomu kilifa la doomu kilifa la damay kaalaw damay kaalaw toog toog ni ñu daree sama baay ni ñu daree sama bàyyi ñu daree ma ko ñu daree ma ko te bu ko incarné woon te bu ko incarné yëpp nangu waaye defu ko waaye defu ko la jiital lan la jiital yar yar waaye toog ak toog ci kaw xam-xam ci kaw xam-xam waaye wàcce boppam waaye wàcce boppam di tar bi woy juróom te loolu nag nee ku ku mucc ku mucc rek ku raw ku raw ci ay maasam ci ay maasam nga rawee foofu nga jaar moo tax fi mu dugg moo tax fi mu dugg ñëpp jox ko dog jox ko nopp fu mu dugg fu mu dugg ñëpp ñëpp est-ce que ñëpp ni est-ce que lu tax nee na lu waral loolu tarbiyu way juróom mooy tarbiyu gi muy tarbiyu way juróom ba barke bi ñëw wuy mën nekk doom mën nga nekk doom sa baay sa baay bëgg la bëgg la jox la alal jox la alal jox la wërsëg lépp jox la lépp li ne ci àdduna ba mu des benn muy barke muy barke dañ koy liggéey barke dañ koy liggéey gis nañu liggéey bi te gis nañu liggéey bi koy liggéey mënul dem fu way juróom mënul dem jug na taxaw moom jug na taxaw jàppale ko jàppale ko ci mission bi yëpp ci mission bi yëpp ñun kon nag ñoom say rak say rak kontaan nañ ci bu baax kontaan nañ ci bu baax te it rafet référence nga ci ñoom ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax Cerno itam mu ngi lay ziyaara mais mu ngi yóbbante nuyoo yu sell ci suñu way jur ba ci suñu way jur ba di Cerno euh, euh, euh, Abdourahmane Bari moom muy nitu yàlla bu mag muy nitu yàlla bu mag Sénégal Sénégal ak fudul Sénégal. ak fudul Sénégal ñëpp. xam nañ taxawaayam xam nañu taxawaayam. mën naa ni sax. nee na mën na ni sax Sénégal xamuñu ko. Sénégal xamuñu ko. ñan ñoo ko xam. ñan ñoo ko xam bitim réew. waa bitim réew. Mm-hmm. boo demee Italie. nee na boo demee Italie dem France. baa nga dem France yeneen dëkk dëkkaan wala nga dem yeneen dëkk dëkkaan xam nañu dëgg dëgg ni way juróom jàmbaar la waaye itam nitu yàlla pire la nitu yàlla pire la xoolal rek nee na xoolal rek xol bu rafet bi mu yor xol bu rafet bi mu yor nee na bi ceeb na ñëwee Italie Bergamo dugg Bergamo. Thierno yëgalee ko nekk ñëw na Bergamo. nee na bi ko Thierno yëgalee ni dugg na Bergamo. daawoo mboolem taalibim yëpp. daawoo mboolem taalibim yëpp ñëpp dem leen ziare. ne dem leen ziare. ngeen yóbbul ko addiya. ngeen yóbbul ko addiya toppatoo ko ba keroog mu fay jóge. keroog ñoom na keroog ñoom ñëpp ñëw ñëw nañ ba Bergamo ziare. loolu na loolu xol bu rafet a koy waral. am nga am say njaboot. nga jël di ko def. nga jël cër bu mel noonu di ko def. xol bu rafet la na yàlla sàmm na yàlla aar na yàlla wattu waaye Papa Ka. woy juróom Papa Ka. Euh, taxawaay bu rafet la am nee na taxawaay bu rafet la am moom itam. Sénégal ñëpp. nee na Sénégal ñëpp. adduna bi yëpp. adduna bi yëpp. gis nañu ni mu taxawee suñu woy jur. gis nañu ni mu taxawee suñu woy jur Abdourahmane Bari. ndax boo ñëwee ca Boggal. ndax boo ñëwee ca Boggal. wala ca Ndakaaru. wala ca Ndakaaru. mu nekk ci wetam. da ngay gis mu ne ci wetam. di daw di ko jàppale. di ko jàppale ci mission bi mu def. nee na loolu yëpp. boppam la koy defal boppam la koy defal. ndax booy liggéey nit yàlla. yàlla ci boppam moo lay fay. yàlla sàmm ko yàlla wattu ko bu baax. nee na kilifa gu tedd gi ziar mu ngi ànd ak Pape Ka ñu ngi koy ziar bu baax ak Serigne bu tedd bi itam ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay. <laughs> Eh, Imaam Ousseynou Faye <laughs> eh, nee na nit ku baax a ngi nii dëgg la moom sunu wëllëre la yàgg yàgg. muy kuy tàggat yonent bi muy kuy la si bu baax waaye di ci jàmbaar lool nee na moo tax mu naw ko lool te mën a sañ si moom mu ngi nuyu ki nga àndal bu baax a baax nee na soxna si it ñu ngi lay jox sa wàccuwaay nee li sëriñ bi seede ci rafet na nee bul am dara looy tiit li gën a jafe rek mooy am wéeruwaay bu baax te dëgg-dëgg fi nga jàpp foofu la sa moroom yu bari bëgg nañ koo am waaye amuñu li nga am fii téye baax am nga ku baax ku jullite seetul dara yi nit yàlla rek ko ñor kon ca kaw ca kanam rek incha allah ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di ziara ñu lay jox seen wàccuwaay nee na li si Mouhamadou Moussa wax léegi ñu ngi ànd ak président Mor di jabootu góor gi di jabootu góor gi di kenn ci moom di kenn ci moom muy kilifa waaye nag di ndaw waaye di ndaw koo xam ne jeunesse bi yëpp dañ koo jox nopp jiital ko muy ku baax muy ku baax ku dal fidèle nag waaye itam di ku fidèle jub nag di ku jub tamit tabaarakallah to tabaarakallah sa Abdoulaye Anne nee na man mii di Oustaz Abdoulaye Anne taxawaay bi rafet la moom tamit sama taxawaay rafet na lool ndeysaan muy borom xam-xam nee na may borom xam-xam waaye jàmbaar waaye may jàmbaar ci biiru jàmbaar yi ci biiru jàmbaar yi nee na yàlla sàmm am dem rek waaye wax leen am ñoom ñii yëpp bàyyi bàyyi nañ seen yitte yëpp nee na fu muy dem rek ñu bàyyi suñu yitte yëpp suba ba léegi ñoo nekk ñëw ànd ak moom suba ba léegi ñoo nekk ba léegi suba ba léegi programme la ñuy yendoo ci ay programme la ñuy yendoo sañoon nag nee na bu ñu sañoon nag fii la ñuy fekk bu ñu sañoon sept heures fii la ñuy fekk pexeem waaye jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla ak dogalam bu ñu sañoon nee na bu ñu sañoon takkusaan pile fi la ñuy nekk takkusaan pile fi la ñuy nekk waaye circulation yi xat-xatu tali bi moo ñu téye ba ñu yéex a agsi nee na fa tabarakallahu nee na sang bi ñu la jox sa wàccuwaay di kontaan bu baax taal seeni taal neen seeni taal taxawaay rafet na sa taxawaay rafet na teeru bi rafet na kontaan nañ ci bu baax yàlla yàlla sàmm la yàlla wattu la nee na fa tabaarakallah nee na ma bañ a téye temps bi sama mag rek doon ibil magam ci ndigalam ci ndigalam nee na ci la yëkkatee kàddu macha allah nee na fa tabaarakallah na yàlla sàmm na yàlla aata wattu nee na ñoom say rakk la ñu ngi xool ci yéen ñu ngi xool ci yéen di roy ci yéen di roy ci yéen incha allahu taala yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm soxna si bu dee am na kàddu yu mu bëgg a sànni ay ganam ay soppeem a ku sopp ki nga sopp mm-hmm. yow la sopp sa soppe soppe sa soppe la bés bi nag bésu soppe yi la bés bi bésu soppe yi la xaya xam naa ni sax est-ce que mu bokk wallaahi sama wetu yaay la toog nii sama yaay la daal léegi sànq ngay wax fekk ñu ubbi mu ngay ñëpp mu ne kii mbaa nga loolu def waaye bi sa papa sa yaadee ak lu mooy jàngal alxuraan waaye jigéen sow at bu ne ren dem nañ tam mbaa nga lool beneen ñi mbaa nga lool parce que ku koo xam ne mu itam su baax la jigéen su benn lool ay jërëjëf. wax dëgg yàlla mooy bëgg a def loolu ma lu ma dëgg. ñu ngi jéggalu baax a baax a baax a baax. ay kilifa ay kilifa buñ toogee bu wax man boobu. sama jëmm ji rus naa see teg baat. mais mhm. damay jégaluwaat bu baax a baax. Mhm. kii man goro laa si kër gi. ñu mënoon na ñàkk. mais ñoom ñoo ma jël dugal ma seen biir def ma comme doom kii mooy lépp comme ni mu ko waxee suba ba léegi rek mooy yaay. caatam moo nekk nii mooy sama soxna du jóg ci kër mën na jóg kon dañ leen di sant bu baax a baax a baax li ngeen ko defal nii mi ngi mel ni man lañ ko defal dama koy waxaat wax naa la kàddu seede la rek sama doom bu ndaw yi 17 ans la am fa dem Italie pour jàng yi ci téeram c'est que mu déplacé am benn waay bi ñu ko téyeel en attendant muy régler ay empreinte am foofu dafa gis sama soxna estati góor gi estatem bi ngay def publicité kii mu gis ko sama numéro soxna bii bi ñu presque une heure du na kaa muñ mënu koo muñ mu woo ko ne ko waaye yow ki ngay estati foo ko xamee expliqué ko kaa yi mu yóbbante ko ne bu bu ngeen demee ne ko njawar mu ngi lay gërëm bu baax di la sant li gën a yow daal li ñu wax si yow rek jëm ji li ñu wax si yow rek boo ñëwee nga gis lu ko raw dañ lay sant di la gërëm am na commencement mais amul fu mu ñëw. li yombul yombul. non tey nit a ngi fi tey bëgg am lii mu tële la. li taw yëpp ay kilifa suba ba léegi ay kilifa ñoo fi jàpp. yaa xam li nga bëgg yaa ngi koy nag bu baax a baax a di ko sant Mohamed bu baax. dëgg yàlla nit ku jàmbaare la. Mm-hmm. li mu leen wax rek am na lu des jàmbaar dëgg la. Mm-hmm. dëggantaan jërëjëf. incha allah macha allah. alhamdulilahi hamdan yuwaafi yatfau anna balaahu wa niqmahu mm-hmm. allahumma laka alhamdu kama yanbaghi bi jalaali wa nuuri wajhika wa azimi sultaanika wa majdika allahumma asli qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bi taqwa wa ajma alana xayra al axirati wal ula alhamdulillahi ala kulli xaal والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ورضي الله عن القطب المكتوم تاج العارفين سيد الوردة أحمد بن محمد التجاني خير wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar Modou Moustapha ne mi ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ko suñu wasila di waxee saa su ne ne comme ni ko suñu wasila di waxee saa su ne di samaatu cheikh alxaaji abdurahman bari samaatu cheikh alxaaji abdurahman bari ñu leen di fàttali di fàttali suñu bopp ragal yàlla. mooy di leen fàttali di fàttali boppam ragal yàlla. naka la suñu bopp ragal yàlla ak jaamu ko. naka la ñuy fàttali suñu bopp ragal yàlla ak jaamu ko. xanaa di jëfe li nga xam ne moom la yàlla digal te bàyyi xanaa di jëfe li ñu digal ak di bàyyi li mu ñu tere. di wax ne. di wax ni ñu ngi am jafe-jafe lool ci wax ci yëkkati kàddu ñu ngi am nag jafe-jafe lool ci yëkkati kàddu xam naa dinaa leen nettali benn xissa bu xaw a reetaan lu tuuti rek ne xam na ni dina leen nettali benn xissa bu xaw a reetaan tuuti bu ma dégg suñu baay Cheikh Ahmad Ababacar ñas wax ne bi mu dégg suñu baay Cheikh Ahmad Ababacar Niass wax nee na benn dafa am benn dëkk boo xam ne nee dafa am benn dëkk boo xam ni benn imaama fa ne. benn imaama fa ne. bépp soxna bu boroom këram wàññeeku rek. bépp soxna bu borom këram wàññeeku rek. dana fexe ngoroog yow ba takk la. dana fexe ba ngoroog yow ba takk la. bis nag mu daje koo xam ne. bis nag mu daje koo xam ne. yëgul woon ne kooka. yëgul woon ne kooka. dafa amoon ay boroom kër yu bari. dafa amoon ay boroom kër yu bare ñoo xam ne bu si nekk sëy na ak yow. boo xam ni bu ci nekk sëy na ak yow. waaye nag faatu nga bàyyi ko fa. waaye nag borom day faatu bàyyi ko fa. comme que nag moom ndaw si. comme que nag moom ndaw si. ku bari pexe la. ku bari pexe la. boroom këram bu faatu rek. borom këram bu faatu rek. wékk na sa mbaxane. mu jël mbaxane bi mu wékk ko. ci armoire am. ci armoire bi borom këram bi muy mujjee am faatoo. bi borom këram nag bi muy mujjee am bi mu faatoo. imam ba ñëw. imaam ba ñëw. daal di koy door di ko labat. daal di door di ko labat. ne ko man farataa ma tax a jóg. ne ko nag man farata moo tax ma ma ñëw. Hmm. yàlla def ñu wax ci ba mu daal di jël ndaw si soxna. yàlla def muy wax ci ba mu jël ndaw si soxna. ndaw si nag ne ko man dama yor sama kër. ndaw si nag ne ko man dama yor sama kër. bu la neexee mun nga ñëw fii. bu la neexee nag mën nga ñëw fii. may ay ayloo ak samay wujju. may ay ayloo ak samay wujju. ci sama kër gi fii. ci sama kër gi fii. ah bi daal di ñëw. ne imam bi daal di ñëw. dugg si néeg bi rek. dugg si néeg bi rek. fekk mbaxana yi rangaloo. fekk mbaxana yi rangaloo. Hmm. mu daal di ne ah waaye mbaxane bu vert bi moom ku ko moom. mu ne waaw mbaxane bu vert bi moom ku ko moom. mu ne ko sama benn borom kër moo mu ne ko sama benn borom kër moo ko moom. Hmm. mu ne ko anamu. mu ne ko animu. mu ne ko dem na. mu ne ko de moom day yàlla def na dem na. mu ne ko bu ruus bi nag. mu ne bu ruus bi nag. mu ne ko boobu tamit sama beneen borom kër mu boobu it de sama beneen borom kër la woon. mu ne ko anamu mu ne animu. mu ne ko dem na mu ne ko moom it dem na. noonu la ko toppee daal. nee noon daal la ko toppee. ba mbaxana ya jeex. ba mbaxana ya jeex. mu daal di simbi bosam. daal di simbi bosam. daal di koy joxe. daal di koy jox. ne ma nit dem naa. ne ko ma dem na waaye loolu moo fi nar a dal ne loolu nag moo ko fi nara a dal fa tabaarakallaahu li tax ma wax loolu ne fa tabaarakallaahu li tax mu wax loolu mooy kaddu yu sell yi ma fi dégg ne kaddu yu sell daal yi fi dégg kaddu xikma yi ma fi dégg kaddu xikma yi mu fi dégg daanaka daanaka liñ fi yëkkati yëpp liñ fi yëkkati yëpp doo xam sax loo ci dolli doo xam sax loo si war a dolli ci yiw ci yiw ci mbaax war loo ci tool bi matale nga ko ba mu mat sëkk. nga ko ba mu mat sëkk. kii si sa toolu moroom nga ne. kii si tool sa toolu moromam la ne. kële tamit sa toolu morom nga ne. kee nekk tamit ci toolu moromam. moo tax bu ma koy xool. moo tax bu koy xool. Thierno Abdourahmane lay gis ma. Thierno Abdourahmane lay gis moom. moo tax bu euh, doomam. moo tax nag bu toom Cheikh Oumar. toogee toogee. munuma ludul. munul ludul. am yëg-yëg am yëg-yëg boobu. te it mu daal di koy feeñal. mu daal di koy feeñal. ci kàddoom yi ci kàddoom yi. kàddu gu sell gi. kàddu gu sell gi. kàddu gu teey kàddu gu teey waaye nag. waaye nag xam-xam. ànd ak xam-xam. ndax euh, woykat bi dafa ne. ndax woykat bi daf ni. lépp lu mokk. lépp lu mokk. boo koy génnee. boo koy génnee. génnin bu yomb lay génne. génnin bu yomb lay génn. te it. te it buy duggee ci nopp yi. buy dugg ci nopp yi. direct ci biir xol yi la jëm. direct ci biir xol yi la jëm. moo tax bi mu yëkkatee kaddu rek. moo tax nag bi Cheikh Omar yëkkatee kaddu rek. yëg-yëg bi ma amoon. yëg-yëg bi mu amoon. bi ma koy xool. bi mu koy xool day gis baayam. day gis baayam. dafa dalal sama xel. dafa dalal xelam. ak sama xol ak xolam. di ko ziyaar. ne di ko ziyaar. jël ziyaar boobu nag. jël ziyaar boobu nag. daal di koy jox. daal di koy jox. mbooleem ñi fi toog ñëpp. mbooleem ñi fi toog ñëpp. ndax man de aw ma xaajale. ndax moom amul xàjjagle diggante waa kër Cheikh Ahmad Tidiane Ba Bambilor waa kër Cheikh Ahmad Tidiane Ba Bambilor ak waa kër Cheikh ak waa kër Cheikh Abdourahman moo tax moom lay jox nuyoo bi moo tax moom lay jox nuyoo bi mu daal ñu koy joxal mu daal ñu koy joxal suñu bàyyi am du wan suñu bàyyi am du wan mu daal di ñu koy séddale mu daal di ñu koy séddaleel ci mbooloo mi ci mbooloo mi sànq nag sànq nag dégg naa ci benn mbokk mu baax. dégg na ci benn mbokk mu baax. bu daal di wax ne. bu daal di wax ni. yaakaar naa sama turandoo la. ne yaakaar na ni turandoowam la. mu ne am na mbir yoo xam ne. am na mbir yoo xam ne mu Mouhamadul Moustapha Sy. munoo koo xam. munoo koo xam. ci téere yi ci téere yi. foog nga ñëw si ku mos. waaye foog nga ñëw daal ci ku mos. fi ñuy mosee. fi ñuy mosee. mu mosal la ci mu mosal la ci. dëgg la xam wax ne. ne alquran daf ni. am na ay aaya yoo xam ne. am na ay aaya yoo xam ni. lu mu wax rek la wax. lu mu wax rek la wax. waaye am na yeneen aaya yoo xam ne. waaye am na yeneen aaya yoo xam ni. dafa am lu mu sumb ci wax ji dafa am lu mu sumb ci wax ji. nee na aaya yooyu. nee aaya yooyu. dana am nag ay xalaat yu bari yoo xam ne du nuroo. nee dina am ay xalaat yu bari ya nga xam ne du nuroo. ci ñi koy firi. ci ñi koy firi. wala ñi koy ñi koy gëstu wala ñi koy gëstu mun na dem sax mën na dem sax ba indi fitna ba indi fitna ci diggante xalaat yi ci diggante xalaat yi waaye nee na aaya yooyu waaye nee na aaya yooyu amul kenn ku ko xam amul kenn ku ko xam kudul yàlla kudul yàlla wa maa yaalamu taawiluhu illa allah wa maa yaalamu taawiluhu illa allah waaye nag mu ne war raasixuuna fi l ilm waaye nag mu yokkute ne war raasixuuna fi l ilm yaquluuna amanna bihi yaquluuna amanna bihi kullu min indi rabbina kullu min indi rabbina maa yatadakkaru illa maa yatadakkaru illa ulul albab ñooñu nag nee ñooñu nag mooy ñi mos mooy ñi mos ñooñu nee ñooñu boo mosul ci ñoom soo mosul ci ñoom munoo xam aaya yooyu li ñuy munoo xam aaya yooyu li ñuy firi te te te te boo demul ba mën a am aaya yooyu li ñuy li ñuy wax. ne boo demul nag ba mën a am. aaya yooyu li ñuy wax. jàppal ni sa diine am na lu ci des. jàppal ni sa diine am na lu ci des. waaye nag. waaye nag. gannaaw bi yonent bi yombalal nañu mbir mi. waaye nag gannaaw ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yombalal nañu mbir mi. daal di koy tënk ci charia. daal di koy tënk ci charia. da nga siy tënku rek. da nga tënku rek. da siy tënku rek. da nga tënku rek. waaye li tax. ku mel ni suñu sëriñ Seydi Cheikh. ku mel ni suñu sëriñ Seydi Cheikh. Ahmad Tidiane Cherif Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu Cherif. ñu daal di euh, sump lu mel ni tariqa. ñu daal di samp lu mel ni tariqa. mooy li nga xam ne. mooy li nga xam ni. moom la. alquran wax ci aaya yooyu moom la alquran wax ci aaya yooyu fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqina ñu ngi bëgg loolu tamit ñu ngi bëgg loolu tamit ci teewaay bii ci teewaay bii ndax sànq ndax sànq Hamdou wan mu ngi wax benn wax. Hamdou Wane mi ngi wax benn wax. mu ne moom. mu ne moom. bi muy dajeeg sëriñ bi. bi muy sëriñ bi. amoon na dépense am. amoon na dépense am. këram. am këram. am li mu soxla woon ci mbiru àddina. am li mu soxla woon ci mbiru àddina. waaye nag dafa am lu mu doon seet. waaye dafa am lu mu doon seet. amaana. amaana. bu njëkkoon a dajeeg Thierno Amadou Ba Bambilor. bu njëkkoon a dajeeg Thierno Amadou Ba Bambilor. dana doon gis. dana doon gis lim doon seet lan la. lim doon seet lan la. ndax sànq. ndax sànq. dafa am benn ay alquran bu ma doon liir. dafa am benn ay alquran bu mu doon liir. ahlul qur'aan yi. ahlul qur'aan yi. aaya bi mu ngi wax huwa alladi anzala sakinata. Mhm. fi qulubi almuminin. liyazdadu imanan maa imanihim. walillahi junudu samawati wal ard. wa kaana allahu aliman hakima. aaya bi nee na. ne aaya bi ne. man sama borom. man sama borom. man maay jël li nga xam ne mooy dalub xel. maay jël la nga xam ni mooy dalub xel. français di ko wax quiétude. français di ko wax quiétude. quiétude. eh waxal mu di ko wax quiétude. français di ko wax quiétude. jàngalu ma loolu man maa ko jël. ne loolu moom moo ko jël. ma def ko ci seen biir xol. mu def ma def ko ci seen biir xol. loolu tegu. quiétude mooy sakina. waaw sakina. loolu loolu mu ma teg ko si seen biir xol. ne loolu ma teg ko seen biir xel. seen biir xol. seen biir xol. mu daal di tegu. mu daal di tegu. si seen ngëm. ci seen ngëm. bi ma defoon ci yéen. bi ma defoon ci yéen. loolu dana tax. loolu dana tax. bu ma jëlaatee beneen ngëm-ngëm. bu ma jalaatee beneen ngëm-ngëm. teg ko ci yéen. teg ko ci yéen. di ngeen ko mën a dékku. di ngeen ko mën a dékku. waaye nag nee na yàlla nag mooy ki nga xam ne moom mooy xakim waaye nag mu ne yàlla daal mooy xakim wa kaana allahu aliman xakiman allahu aliman xakiman te yu'til xikmata man yasha te yàlla nag yu'til xikmata man yasha wa man yu'tal xikmata wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kathiran faqad utiya xayran kathiran loolu nag loolu nag ne loolu nag bu ko yàlla defee ci yow ne bu ko yàlla defee ci yow mu def ci yow xikma bu def ci yow xikma bi ñuy dajeeg suñu bàyyi Cerno Amadou Ba Bambilor bi ñuy dajeeg sunu bàyyi sunu bàyyi Cerno Ahmad Ba Bambilor keroog ca Pikine keroog ca Pikine loolu laa wax ne loolu la wax ma ne leen ilmu ne leen ilmu ak xikma ak xikma bokkul bokkul ilmu da nga koy jàngi ilmu da nga koy jàng moom la suñu mbokk gi moom la suñu mbokk mi uti ji woon ca Maroc uti ji woon ca Maroc ba fees si tep ba fees si tep waaye bu mu dajeeg suñu bàyyi waaye bi ñu dajeeg suñu papa suñ si lañ ko suñu papa ràññatle si suñu papa ràññatle luy xikma luy xikma ak luy ilm ak luy ilm mu xam ne mu xam ni ilm ilm mooy base bi mooy base bi waaye xikma waaye xikma mooy yax bi mooy yax bi loolu mooy tax loolu mooy tax bu nekkee ci góor yàlla. bu nekkee ci góor yàlla. nga xool ko. nga xool ko. di bëgg. di bëgg. doo xam li lay bëggal la. la lay bëggal la na. sànq bi léegi maa ngi koy seetlu. na sànq ba léegi mi ngi koy seetlu. ci kanam yi. ci kanam yi. ku ci xool du rek. ku ci xool xam hamdu rek. da ngay mel ni dangay ngay gis mbégte. da ngay gis mbégte. mu feeñ ci si kanam. mu feeñ ci kanam yi looloo tax. ne looloo tax. bi may ñëw. bi muy ñëw. suñu sëriñ. suñu sëriñ. di Thierno Abdourahmane di Thierno Abdourahmane Bari daf ma ne daf ni ko damalal ma ci sama am du wan nga demalal ma ci sama am du wan nga sama am du wan sama am du wan sama am du wan la am du wan la dafa am koo xam ne dafa am koo xam ni sëriñ bi daf ko digoon ne sëriñ bi daf ko digoon ne daf koy yendul tey daf koy yendul tey keroog bi ko am du wan di wax bés bii ne keroog bi ko Thierno am du wan di wax bés bii la fas yéene woon teew la fas yéene woon teew waaye fàtte woon na ne waaye fàtte woon na ndax nag fàtte nag fàtte nag mooy nit mooy nit boobu la xelam génnoon ci ne boobu la xelam génnoon ci dafa joxoon waa ji kàddoom dafa am ku mu joxoon kàddoom ne ko da koy yendu si tey ne da koy yendu sil tey kooku nag démb kooku nag démb la ñëw si kër gi la ñëw ci kër gi si xadaratul jumaa mu tardé mu tardé waaye mu woo sëñ bi waaye mu woo sëñ bi fàttali ko ko fàttali ko ko te mu nekk ku yaakaar si sëñ bi te mu nekk tamit ku yaakaar ci sëñ bi te it sëñ bi tamit te sëñ tamit xam ne xam ne fu xam du wan toog fu xam du wan toog moom moo fa toog moom moo fa toog du maa ko wax de ne du moom moo ko wax de sëñ bi laa dégg mu wax ne ne sëñ bi la dégg mu wax ni ki nga bëgg. ki nga bëgg da nga koy roy. da nga koy roy. lu muy xool. lu muy xool. loolu ngay xool. loolu ngay xool. lu muy gis. li muy gis. loolu ngay gis. loolu ngay gis. na muy déggee. la muy déggee. noonu ngay déggee. noonu ngay déggee. na muy gisee. na muy gisee noonu ngay gisee. noonu ngay gisee. na mu lu mu bëgg. lu mu bëgg. loolu ngay bëgg. loolu ngay bëgg. kon doonatuloo di. kon doonatuloo di kon moom moo doon. kon moom moo fa nekk. jox nga ko sa lépp. jox nga ko sa lépp. ba yow. ba yow nga seey ci moom. nga seey ci moom. loolu la Hamdouane. mais loolu la Thierno Hamdouane. sekkal sekkal. kii nga xam ne moom mooy ca Abdourahmane. kii nga ne mooy Thierno Abdourahmane. daf may fàttali nag. ne daf koy fàttali nag li Ibnu Arabi waxoon ca téeram li Ibnu Arabi waxoon ca téeréem nee na nee na yàlla da doon wax ak jaam ji yàlla dafa doon wax ak jaam ji ne sama mbëggeel ci yow ne ko sama mbëggeel ci yow résultat la résultat la sa mbëggeel ci man sa mbëggeel ci man wala sa mbëggeel ci man wala sa mbëggeel ci man résultat la résultat la sama mbëggeel ci yow mbëggeel ci yow lu tax loolu lu tax loolu ndax yow bi may bëgg ndax yow bi may bëgg si yow sama jaam bi yow sama jaam bi nga fekk ma nekk man yàlla da nga fekk man ma nekk man yàlla ndax man nekk man si nekk laa nekk laa nekk ma defar la ma defar la ci nekkin ci nekkin kon ndekete li nga ma bëgg li nga ma bëgg dafa fekkoon ne dafa fekkoon ne ma bëgg la man ma bëgg la ba pare ba pare looloo indi nag wala xad karam naa bani ni looloo indi nag wala xad karam naa bani aadama léegi nag bani aadama boobu nag. ne bani aadama boobu nag. dañ ko wàccee ci kaw suuf. dañ koo wàccee ci kaw suuf. ngir mu nekk seetu. ngir mu nekk seetu. ci yàlla ci yàlla. tànk doomu aadama gi nag. tànk nag doomu aadama bi nag. demul ba. demul ba. fu mu taxaw ba fu mu taxaw. ñi koy xool. ñi koy xool di bëgg. di bëgg nekkagul seetu. nekkagul seetu. moo tax sànq aaya bi nga yëkkati ne moo tax sànq aaya bi ñu yëkkati wa ibadu rahmani alladina yamsuna ala al ardi hawna ibadu rahmani alladina yamsuna ala al ardi hawnan fa ida xaatabahum aljahilun fa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaaman xam nga ibadu rahman ne ibadu rahman nee nee na mooy ki nga xam ne mooy ka nga xam ni moom day buy dox si kaw suuf buy dox ci kaw suuf doxin bu teey lay doxin bu teey lay wax loolu lu muy firi loolu lu muy firi li mu bëgg a wax foofu li mu bëgg a wax foofu mooy ibaadu rahman mooy ibaadu rahman buy dox ci kaw suuf buy dox ci kaw suuf warul gis boppam warul gis boppam yàlla rek la war a gis yàlla rek la war a gis moo tax mu ne doxin bu teey ne moo tax mu ne doxin bu teey parce que ki teey ndax ki teey day déglu day déglu te wa idaa xaatabahum jaahiluna qaalu léegi nag jaahil bi nag jaahil bi nag du nit de du nit déedéet déedéet jaahil bi jaahil mooy mbiri àdduna mooy mbiri àddina moom yàlla la war a gis ne moom yàlla la war a gis lépp loo xam ne lépp la war a def lépp loo xam ne lépp loo xam ne gisu ci yàlla gisu ci yàlla jaahil la jaahil la loolooy jaahil bi ne loolooy jaahil léegi nag bu gisee li nga xam ne ne bu gisee li nga xam ni nuróowul ak yàlla nuróowul ak yàlla salaam la koy salaam la koy wax salaam mooy yàlla mooy yàlla mooy delluwaatal ci yàlla mooy delluwaatal ci yàlla maanaam lépp lu ibaadu rahman gis mooy ibaadu rahman daal lépp lu mu gis yàlla rek lay yàlla rek lay gis buy dox buy dox yàlla lay jege yàlla lay jege lu muy gis lu muy gis yàlla lay gis yàlla lay gis ñu ngi bëgg lool mais ñu ngi bëgg lool nag di wax ne di wax li suñu rakk suñu rakk wallahi sopp nañ ko sopp nañ ko soppoon nañ ko soppoon nañ ko soppoon nañ ko soppoon nañ ko waaye gën nañ ko sopp waaye gën nañ koo soppaat ci oyof gi ci oyof gi macha allah macha allah suñu daje fii ne suñu daje fii dama see jàng ne da cee jàng ne fii lañ waroon daje. fii nag lañ war a daje. ndax innamal aamaalu nag. nee innamal aamaalu. binniyaat binniyaat. loolu la loolu la yonent bi wax. noonu la yonent si yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye sunu sëriñ nag. waaye sunu sëriñ nag mu jàngalaat beneen waxu yonent bi. mooy jàngalaat beneen waxu yonent bi. innamal aamaalu. innamal aamaalu bi xawaatimiha bi xawaatimiha jëf joo gis jëf joo gis rek matee na ci yéene ja matee na ci yéene waaye njëriñ nga waaye njëriñ ga si mottalikaay ba si mottalikaay ba la nekk te mottalikaay ba nag waaye mottalikaay ba moo nekk nii moo nekk nii looloo tax looloo tax ma mun fi daje kii ma mun fi daje kii kon nag ñëpp ñu ko teewe ne ñëpp ñu ko teewe ñi ko ñi ko teewe woon de ñi ko teewe woon sànq fekk ñu leen fi fekk leen fi seen yéene seen yéene indi na leen fii indi leen fii waaye ñun ñi nga xam ne waaye ñun ñi nga xam suñu jëmm suñu jëmm yi teewu na teewu ne teewu na teewu na ci mottalukaay bi mottalukaay bi ah njëriñ nga loolu njëriñ nga ñun ñoo koy jël ñun ñoo koy jël yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal di bég lool di bég lool di kontaan lool kontaan lool di wax ne di wax ni Seydi Hamdou Thierno Hamdou sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na mu lay gërëm mi ngi lay gërëm ngërëm gi mu lay gërëm nag ngërëm nag bi mu lay gërëm nag du ngërëm gi ñi nit xam muy ngërëm du gërëm bi nit ñi xam muy ngërëm déedéet déedéet ngërëm bi mu lay gërëm mooy. ngërëm bi mu lay gërëm mooy. ci say bët. ci say bët. yow ci say bët. yow ci say bët. mu ngi lay gis mi ngi lay gis. ci sa xol ci sa xol. mu ngi lay yëg mi ngi lay yëg. ci sa kàddu ci say kàddu mu ngi wax ak yow mi ngi wax ak yow. kon nag sëriñ bi nee na. kon nag sëriñ bi nee sant na la. sant na la. gërëm na la. gërëm na la. kontaan na ci yow kontaan na ci yow. te it te it boole gi ma boole woon ak yow boole gi ma boole woon ak yow ba ñu dajee ca Norvège ba ngeen dajee ca yee salaat na ko salaat na ko tey jile kon yal na yàlla boole ñu ci yiw yëpp yàlla nañu yàlla boole nag ci yëpp suñu yaay ji nag suñu yaay ji nag ñu ngi koy ziyaar ñu ngi koy ziyaar soppante gi mu soppante soppante gi ñu soppante ak Amdu wan ak Amdu moo tax moo tax mu sant ci boromam mu sant ci boromam la in shakartum nag la in shakartum la azidannakum waaye wala in kafartum wala in kafartum inna adabi la shadid inna adabi la shadid bidayatuhu bidayatuhu nihayatuhu nihayatuhu jami'an jami'an bi nusratihi bi nusratihi yatimu bihal yatimu bihal kalaamu kalaamu salaamu aleykum salaamu aleykum wa rahmatullah léegi nag dañuy ñaan suñu rakk dañuy ñaan nag dañ ko koy ñaan dañ ko koy ñaan dañ ko koy ñaan ndax yëg-yëg boobu lañ am ndax yëg-yëg boobu lañ am na tëj na tëj ñaanal ñu ñaanal ñu ñu yeeweeku ñu yeeweeku ñi nga xam ne ñi nga xam ne yàlla dafa sutante seen seen yaram yàlla dafa def seen yaram sutante yàlla na yàlla féexal yàlla yàlla féexal yéen seen yaram seen yaram ñii ut xéewal ñii ut xéewal ak barke ak barke yàlla na leen ko yàlla defal yàlla ko yàlla defal ñi caabi féete ginnaaw caabi féete gannaaw yàlla na leen yàlla génnee yàlla na leen yàlla génnee ñi nga xam ne ñoom la yàlla yóbbu ñi nga xam ne tamit ñoom la yàlla yóbbu yàlla na leen yàlla yërëm yàlla yàlla yërëm te yéexee ñu te yéexee ñu yàlla defar ñu tey yàlla defar ñu tey defar ñu ëllëg defar ñu ëllëg dugal ñu ci bopp boppam dugal ci boppam ci biir boppam. ci biir boppam tabarakallah tabarakallah bismillah ah. waaye sëñ bi sëñ bi dana waaye kaddu yi rafet na nee kaddu yi rafet jaar na yoon jaar na yoon ñun ñëpp bég nañu nee ñun ñëpp bég nañu te li la mbooloo mi doon xaare te li la mbooloo mi doon xaaree lépp nee lépp matal nga ci xam-xam ci xam ci dal ga ci lépp ci lépp allah nee na macha allah. tey la ñu door a na tey lay doog a am ak yow jotaay. tey lay doog a déglu sa kàddu. tey lay doog déglu sa kàddu. waaye fa tabaarakallah. fa tabaarakallah nee fa tabaarakallah. fa tabaarakallah nee na ñi fi teew yëpp. muy man. nee na muy moom. ñi yëpp. ak ñun ñi fi teew ñëpp. yow la ñuy yaakaar ci ñaan gi. yow la ñuy xaar ci ñaan gi te yow lañ ci yaakaar. ñun ñëpp. nee na ñun ñëpp. seen xamdu. nee na seen xamdu. dañuy yaakaar. nee na ji yaakaar. ci ñaanam. Ceerno Hamdu nag nee na Ceerno Hamdu nag. ku mu yaakaar nee na ku mu yaakaar. sa wayjur sell ba sa wayjur bu sell ba. wayjur ba. nee na wayjuram ba. nekku fi nekku fi. ci zaahir ci zaahir waaye ci baatin. waaye ci baatin nee na mu ngi nii toog. wax nga ko léegi alwaladu. nee na wax nga ko léegi alwaladu. kashfu abi ala kashfu abihi. nee na yaa ngi nii toog nee na kon nag. nee na ñun ñëpp ba tey. suba ba tey ñu ngi lay séentu ngir nga ñaan ngir nga ñaan. am nay borom soxla. nee am nay borom soxla. comme que ñëw nga nag nee na comme que ñëw nga nag. dañoo bëgg. nee na dañoo bëgg. kaste nga kaste. soxla yëpp soxla yëpp. mu faju tey am nañ ci yaqin gu wér. nee am nañ ci yaqin gu wér nag. gu wér nag nee na gu wér. ndax wax nga. ndax wax nga ñu ñu dégg te deretu wilaaya nga. te deretu wilaaya jaan nee na jaan. bu ndaw bu ndaw. amul fenn nee amul fen bii jaan bu ndaw la. nee na bii jaan bu ndaw la. déedéet nee mag bi. nee na bu mag bi bu la màttee bu la màttee bi ak bu ndaw bi bu la màttee bu la màttee ñoo yam dagar nee na bu ñu la luggul rek musiba dal la nee na yu ndaw yi nag ñoo gën a efficace ndax mag day dugg ndax mag day dugg nga gis ko léegi nga gis ko léegi daw faagaagal ko daw faagaagal ko waaye bu ndaw bi nee na bu ndaw bi du sax nee na doo sax gis nee na ci suuf lay ne màtt la tey te doo ko yëg jaan daal jaan la nee na mu ngi nii nee na li ñuy ñaan rek mooy bul delloo ñëpp nee na ñun ñëpp nañu wax amiin nañu wax amiin nga ñaan nga ñaan ñu ne euh, ñun ñëpp ñu ne amiin ñun ñëpp ñu féetewoo amiin am nañ yaqin gu wér ni boo ñaane yàlla nangu nee na boo ñaane yàlla nangu kon nag sëriñ soxal bal bi ya rabbana bi sirri tibil faa'i wa ma hawaahu min salaatil faatihi wa jaa'i kulli siixatin wa qadriha wa sirriha wa sir sir sirriha wa jaa'i xatmil anbiyaa'i llaahi alayhi wa aali salaatullaahi wa jaa'i xatmil awliyaa'i llaahi alayhi suhbu rahmatullah famnun bi mahdil fadli wamtinaani bil afwi wal gufraani war ridwaan wal ijtimaa'i bin nabiyyi Muhammad bi abil faydi tijaani amiin fatim min nabiyil adnaani amiin wa wuslatin min ahmad tijaani wa jazbatin min rabbina arrahmaani narqaa biha maraqi al-af'aali waltuf binaa fi saa'iri al-ahwaali wa najjinaa min saa'iri al-ahwaali واحفظ مقامنا من الأنكال ومن شرور الدهر والأوقات واحمي جميعنا من الشيطان وحذبه من إنسنا ومن جان اللهم اجعلنا للإيمان كاملين وعلى الإسلام ثابتين وللفرائض مؤدين ولسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مستمسكين وبالقرآن عاملين ومن الذنوب تائبين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام الحرام معصومين وفي الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبنعمتك شاكرين وبطاعتك عاملين ومن المعصية هاربين ومن الفتنة سالمين وعند الموت فارحين وفي القبر ثابتين وبالنذر إلى وجهك الكريم متمتعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند allahi huwa xayran wa aadama ajra wa astaghfirullah inna allaha ghafurun rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun fi dunya wa salaamun fi al-akhirah walhamdulillahi rabbil alamin amin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh